salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi nday as jonn sonal nga ñu nday as jonn mii seetlu wu leen ne ba mu tasee ak Cheikh Yérim sekk moom rek mooy wax lan moo tax Cheikh Yérim sekk mus ta wax lan moo tax Cheikh Yérim Seck mus sa ngaay yi gimiñam wala mu fay nit wala mu dem ci ay nit ñu koy waxal nday as jon yaay fay ay Mollah Morgun yaay fay keneen ak keneen mu lay waxal yow rek yaay nekk ci ci ci télé yi di wax seen diggate yen ñaar tas beeg sey beeg nangam nangam ñu bëri nee nan ndey as jon dafa ñaan baat ñu may ko ko déedéet Cheikh Yérim Seck moo la fase li tax mu fase la nag bu ko génnee woon adduna bi tukki sa yaay dana la bàyyi say mbokk bàyyi ñëpp bàyyi la te loolu man mi yor naa ci preuve man Adamo man maa yor preuve yi te bu coow li bëree ma teg preuve yi Sénégal teg ci seen bopp waaw kay ba lay takk ñu bëri na ne ko looy doyee kii lan ngay doyee kii lan ngay doye kii lan ngay doyee kii lan ngay doyee kii yow ay jabaru ñaari jabar yu Cheikh Yérim yi yi mu am nii ah mindaan sax soxlawul la ko comme mindaan ñoo la dàq foofu waaye kon bu ñu yem waay nday asu jon salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum happy birthday Youssou Ndour Youssou loo dund doyul yow ku baax nga waaw ku baax ku xam teraanga nit koo xamante si nii il mérite de respect yàlla na may gudd fan ak wér loo dund yàlla nga dund di dund di dund di dund di dund ba dund sàppi la bàyyi Birane Ndour yàlla nga gudd fan Youssou yaa baax yaa santi yow yow Sénégal amuñu sa fay Afrique amuñu sa fay Europe amuñu sa fay maanaam kenn mënu laa fay yow l'espoir d'Afrique nga fierté Afrique Papa Youssou yalla nga gudd fan man Adamo sa doom dama lay ñaan wér ak gudd fan rekk ak baat bu wér. waaw